waaw euh, loolu moom euh, defe naa mook euh, àddina ñoo ànd dafay nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu violence yi ñuy def jigéen ñi nag kenn defu ko góor ñee ko def du dëgg te voilà bëgguma dugg ci société boo xam dañuy xëccoo ki a def li kii a def lale mais li may wax rek mooy ñun ñoo bokk société bi suñu góor ñi nañu xam ne ñun dañu sàq pour ñu mottali leen te kuy mottali la nga mottali matut donc il faut que ñoom ñu nangu ne am na lu leen manqué ils sont pas omnipotents ni omniprésents ni omnipuissants loolu yàlla rek a ko moom donc ci seen ñàkka mat ci la ñu yàlla sàkk euh, kon euh, je pense que dañu war a dund en synergie en toute complicité et ak yërmande ah loolu rek la loolu laa siy gën a wax mais wax dëgg yàlla Euh, nooteel gi ñu góor ñi teg moom metti na tarop parce que nag ku xamul suur naa ñu téye sa loxo parce que góor ñi quand dañu war a jël conscience te président de la République wax na ko ci ndorteelu mandat bi nga xamante ni moom la jël dafa wax ne année bii dama koy jagleel jigéen ñi donc je pense que c'est le moment moo tax mu jël yenn décision yi pour gën a protéger jigéen ñi parce que da ngeen di dañu xool ne euh, kër sax bu doxee dañ naan borom kër gi balaa muy jël bon bonnes décisions day waxtaan ak ngeganaayam waaye ku ne xam na ne ngeganaay kenn du wax ak moom ka bokkal ngeganaay bi lay waxal donc loolu il faut que suñu góor ñi ñu mën a ubbeeku ci loolu ñun duñu seen adversaire ñun seen i ay mottali lañu euh, suñu woykat bu mag bi Youssou waxoon na ko nee na euh, jigéen euh, mooy lumière waaye góor mooy courant bi mm. donc relation yooyu la ñu am bu kii nekk bu fi kii nekkul keneen ki du am efficacité bu fi keneen ki nekkul keneen ki donc nañu vivre en partenariat en partenariat effectivement ak euh, vraiment ak yërmande bi mu àndal daal. alors ñun jigéen euh, gis nga ñun jigéen ñun góor ñi yéen la ñu bëgg parce que yéenay suñu ay doom suñu ay doom ngeen parce que ñun ñooy jur jigéen soxorul jigéen du bañ waaye yéen ñuy teg loo xam ne nañ cin bu baxee dañ koo teg ci safara. yéen góor ñi da ngeen topp topp torop nag neexul ba neexu me da ngeen topp topp torop seen bakkan nañu waxante dëgg ñun defuñ dara ñu dañu subir ñun defuñ dara dañu subir cin baxul dañ koo teg ci safara